ville de Dakar la bi nga xamante ni le maire Barthélémy Diaz bi moo ko jiite depuis hier tout le conseil municipal tous les adjoints étaient là pour partager cette peine avec la famille pour partager cette peine avec ses collègues du conseil municipal de Fann Point Amitié ñu fekk fi jigéen ju jàmbaare muy sa première adjointe qui est là depuis hier elle était inconsolable parce que simplement elle avait des relations particulières avec le maire Palla Samb àddina noonu la nit bu leen yàlla boolee ngeen ànd ànd bu rafet démb kenn xàmmewul kenn kenn mënul consoler kenn parce que li fi tiis bi dal suñu kaw dafa diis te wolof njaay nee na lu la bett mën la demu paala bi daf ñoo bett moom mi ci boppam demam bi bett na ko et dañuy delloo sunu borom la ñuy dellu parce que moo ñu sàkkoon te bi mu ñuy sàkk tàgguwul kenn buy jël aussi du tàggu kenn mais c'est des moment extrêmement difficiles nit boo partagé ak moom des moment extraordinaires bés bu fi génnee aussi am nga loo xam ni c'est un vide boo xam ni bàyyi na ko fi ma wax njaboot bi ne leen kii di le maire Barthélémy Diaz il avait des relations yoo xamante ni mënuñu ko sax expliquer fii ndax ni mu àndee woon ak Pala Samb ba pare Pala def ko rakkam ba pare gunge le maire de Dakar Barthélémy Diaz ñu bokkoon combat bi ñu doon combat pas le si lool dès le début il a pris la décision ferme d'être à côté de son ami pour euh, mu ànd ak moom gunge ko ba li nga xamante ni mairie Ndakaaru bi tegu na ci loxoom kenn ëppale ko woon ci xeex bi mais Barthélémy ku ko xam xam ni c'est un nom intégre te loo ko mës a euh, dénk wala loo ko lebal Barthélemy Diaz fay na la ba wiis na la et moom it bi ko yàlla joxee mairie ndakaaru amul lenn loo xam ne mu ngi koy nas te woowul magam woowul xaritam muy Pala Samb diisoo ak moom ñu weccoo xalaat balaa muy jëf quoi que ce loolu leer na commune Fann Point Amitié loolu leer na famille Pala Samb et di leen wax ni aussi le maire Barthélemy perte na xaritam perte na magam perte na collaborateur am Parce que ce que je suis en de dire, je suis bien placé pour le dire, parce que par là, nous avons fait notre jeunesse socialiste ensemble. Il a fait sa jeunesse socialiste avec ses amis qui se sont mobilisés aujourd'hui. Ils sont tous la Demba ba tey kenn demul sa kër boo fa demee uniquement peut-être c'est pour nga dem yërnu sa njaboot nga dellu si waaye lii moo neex suñu borom di ñaan yàlla bi dara tëwul yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na yërmande yàlla suñu borom dal ci kawam yàlla na rëccu li mu doon def ci àddina moom ki doon wasilaam muy Cheikh Ibra yàlla na ko teeru yàlla na ko yonent bi sallallahu alayhi wa teeru mais le maire Barthélémy est très affecté le président Khalifa Ababacar Sall est très affecté parce que Pala c'était un pilier dans ce département de Dakar bërki démb rek yàggul c'est un régulateur c'est lui à a présidé la réunion de l'union régionale de Dakar bi nga xam ne mooy taxawu bi nga xam ni foofu la bokk ñun ñàkk nañu ko màgg ñàkk nañu ko rëy xalifa Sall ñàkk na waaye son frère le maire de Dakar Barthélemy ñàkk na xaritam mais Pala il est irremplaçable c'était quelqu'un de pétri de qualité humaines je dis que c'est un humaniste c'était un philanthrope lépp lu ko lu mu ñàkk xaritam moo tax mu ñàkk loolu paala lépp lu mu amul njaboot a tax amu ko lépp lu mu am séddoo na ko ak ay nitam parce qu'il suffit juste nga def un tour au niveau de sa commune pour se rendre compte que c'était quelqu'un de merveilleux ci wàllu liggéey je pense que kenn la woon tey ku gis visage u Fann Point Amitié ba nit yi renouveler ko leur confiance c'est parce que simplement il a changé quasiment le visage de la commune de Fann Point Amitié parce que nit yi kenn naxu leen nit yi kenn moomu leen nit yi da ngay def rek ñu gis mais pas la wax dëgg yàlla sori nañu trop nous savons qu'il va plus jamais revenir il sera plus avec nous mais nous retenons de cet homme quelque boo xamante ni il était exceptionnel monsieur le maire ñu ngi lay massawu xam nañu paal fu mu la féete woon xam nañu sa àndandoo ak moom àndandoo bu sincère la woon parce que paal dafa bokk sur les premières personnes on avait un projet il avait cru à ce projet et xamoon nañu fi ñu nar indi muy zaayir muy baatin taxawu na ko ci wetu rakkam ba yàlla indi ndam bi et moom it aussi comme je l'ai dit tout à l'heure il l'avait bien compris moo tax teg na ko ci wetam il était un de ses adjoints ba pare nekk son conseil spécial am Alaaji Paala ñu ngi leen di massawu sunu kàddu bi nga wasaare ko ci njaboot bi Paala kenn la woon ci ñun fii mun nañu wax ci paala ba suba mais li junj la rek xëy na suba ci kàttanu suñu borom buñ ko jébbalee boromam ba pare dinañ ci delluwaat fii incha allah pour waxtaan ci ki nga xamante ni ñàkk nañ ko mais nag on ne vous apprend pas que le Coran vous a enseigné mooy lépp yàlla sunu borom la moo soxla moo jël metti na mais dañ koy ñaan dans sa miséricorde et dans sa bonté infinie mu kàttanal ñu dooleel ñu ñu am loo xamante ni ñu mën a nangu ndogal bi nga xamante ni ak tiis bi nga xamante ni wàcc na suñu kaw. et je pense que je réitère les propos de Khalifa Ababacar Sall notre président ne bu ñu ñëwee dinañu waxtaan lépp lu war ci bës bi lépp. sunu dëj la Barthélemy jël na lépp en charge di gërëm bu baax. Moussa Gueye muy kenn ci Barthélemy Diaz Pape Momar Lo ñu ngi koy gërëm di ko sant euh, Mami Nabe muy chef de cabinet Barthélemy Diaz gàcce ngaalaama taxawaay bi rafet na njiit dafay joxe ay instructions et vous l'avez exécuté à la lettre Moussa Gueye suba teel la fi ñëw Pape Momar Lo suba teel lañ fi ñëw lépp lu war ci bés bi def nañ ko ñun suñu dëj la ñun ñoo koy dëjal sunu bopp dañuy ñëw bokk ak yéen naqar bi di leen réitéré ni lépp lu war ci bër bu leen ñu yërëm ci dara lépp loo xam ni dañ ko war a def Barthélemy Diaz sur. monsieur le maire ne ñu ngi nuyu mbooloo mi. di euh, jiital euh, ci nuyoo bi suñu mag euh, di sëñ Pala Mbeng le maire Alioune Tall wax na duma ci yokk leneen tànki tànki njàll di wax mbooloo bu fi teew tey si leen lu ñu bokk di wax tamit que njaal bi ñu ngi koy euh, jëbal au conseil municipal de la commune de Fann Point Amitié ainsi que le bureau municipal de la commune de Fann Point Amitié maa ngi jégalu ci kàddu yi du mën a wax mais par yaa ngi dem que les anges et les archanges t'accompagnent au paradis céleste et que Dieu t'accompagne et que Dieu te garde fu nga jëm na la gënal fu nga jógee merci. je jox Cheikh Fall. aouzu billahi mina shaytaani rajim. bismillahi rahmani rahim la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim